asura bi mooy euh, jour bi nga xam ne moom la ñu rey suñu imam imam Hussein mooy kuddoomi Fatima Zahra mooy petit-fils yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye maa ngi wax ne yéen yëpp xool leen bu baax ku am jarbaat rek su dajee woon ak ñu mel nii ñi nga xam ne ñoo rey imam Hussein su yonent bi taxawoon foofu lan lay wax def leen di wax ne rey leen ma ngeen bàyyi Hussein kon ñi rey Xuseyn dafa mel ni dañu rey yenent bi rek waaye ñooñu ba léegi ñu ngi fi ñu ngi fi ñoom nag ñoom ñoo indi lislaam bi ci ñun loolu moo tax ñu fabriqué lu bare ay jëf yu bare ñu ne jaamu yàlla la te loolu yëpp bokkul suñu imaam yi nee na ni nit su amee dëj su amee eh, naxar naxar du wóor imaam yi nag nee na su dee yéen da ngeen nekk suñu compte woor parce que ci l'islam war moy da ngay woor pour sant yalla way su dee da nga am nakhar ak dëj do woor da ngay joy su yenent bi nekkoon fi tey dina joy kon et puis ensuite ñom dañuy jël jour jour ashura bi tam xarit bi comme jour de l'an mais ñun ñep xam nañu ci civilisation yëpp jour de l'an c'est le premier jour c'est pas le dixième jour kon nit ñi nañu delloo sen xel bu baax ci loolu li ci tegu mooy avant élection yii fi amoon eh, waxoon naa ak yenn ma ñaan acteur politique yëpp Sénégal nañu xam ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk nañu xam ne mën nga tabax bi nga détruire ko yàq ko defaraat ko waaye ku détruire dund bakkan ku détruire bakkan doomu aadama mënu ko delloo